Euh, dama gërëm euh, d'abord le président de la République Du coup, remercier si euh, taxawaay bu mu taxaw ba delloo si juridiquement 14-51, à la famille Feu Bagour Djagne. jàmm moo ñu tax a jóg ndax jàmm si la lépp xaj jóguñu pour xeeñ kenn li fi am ñi nga euh, Don des courtiers euh, euh, ñu gën ci Ndiaye ni Moussa Cissé ñi nga xamante bi nga jugement amna ñu am ay avancées par rapport à l'état du Sénégal par rapport à juger magistrat, magistrat, yi nga dañu verdict par rapport à la situation ba président de la République demande à ce que ñu la famille bi alal lool je crois que lool bu ko defee Sagana, Sagana, je pèse bien mes mots État, Sagana, état euh, euh sous nos juridiction c'est vraiment euh, si état droit lañ nekk bu ñu ba joxe état joxe euh, décret génne yaakaar naa ne amatul dara lu ñu fay wax. Euh, beneen bi mooy menaces yi nga xamante ne ni ñu koy def à l'endroit de Demba Antadia, Dia ma nga xamante ne la famille bi mandaté ñun conseil notable de gi jiital nañ ko uuf ko. taxawu ko te xam ne ku ko lal nag ñun nga amal affaire mais ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy menacer di di di di di créer problème ya nga xamante ne di menacer Demba Anta qu'ils arrêtent sinon ñun la ñuy amal affaire dootuñu may kenn nag muy dugg si benn famille Lébu di nagu alalam wala muy dugg si benn famille Lébu di ko toroxal di ñu xeeblu lii xew si dëkk bi yëpp gis nañ ko benn Lébu déggu leen ko ci ñu jóge fongume li ñooy ñëw yor teraangay Lébu yëpp lébu yi bàyyi leen ak ñoom mais la ñu am nag nañ ko bàyyi ak ñoom xoxotaluñu kenn képp ka nga xamante ne am nga fa kër jegeñ sil famille bi ñu li nga waxtaan ak ñoom ñu jox la sa kër la des nag ñoom ñoo si ko moom ñoo si ñoo si seen alal la kenn duñ si xajal lu toll ni tarfatal añi doomu aadama mais la ñu occupé ñëwuñu pour nangu këru kenn nanguñu pour toj këru kenn dañu ñëw pour négocier gérer ko socialement parce que kenn xamul nañu def ba tabax seen kër yi